nommer ak di mettre ku ko bien sûr loolu saison son pouvoir et man président moom euh, su nommé nit teg ko fa mu teggi nit teg keneen man duma ma commenter du ma commenter loolu par respect maintenant lu may wax mooy par rapport à ces rapport ma leeralaat waxaat ni carrément rapport mun naa am. ñu génn dañoo épinglé diw fekk euh, au moment de de de de de de de cette de, de la euh, passation de, de service si biir rapport ñuy joxe day am ay omission dina am ay erreur ak yeneen ak yeneen donc affaire bi c'est juste organe boobu nga xam ne mooy saytu ñi nga xam ne ñoom ñoo euh, luubal wala luubaluñu ñoom si seen critère de ni ñuy épinglé du rek kii dafa luubal xaalis

donc na rapport yi di leer. ah bon fu journaliste moom xam nga dañuy traité information. nu ah, leen ak ay journaliste am <laughs> ak ay voilà yow moom boo ko waxee. donc ay journaliste euh, balaa ñuy jeex génn ci point boobu lan la conseil économique social war a mën a proposer ci mbirum emploi des jeunes bu ko proposé wul ba pare. non conseil économique social par rapport à l'emploi des jeunes lu mu si mën a proposer bëri na parce que peut-être na par rapport aux sessions moi je n'assiste pas aux sessions parce que comme li may waxante ba léegi maa ngi dans dans dans l'administration par rapport à l'emploi des jeunes tey euh, li fi président def foog naa ñi lu ñu gën a mën a def ñun mooy renforcer plutôt cette politique euh, d'emploi et d'auto d'auto-emploi parce que man jàpp naa ne actuellement li fi nekk euh, ak li ñu fi jot a def ah ak tey soo xoolee euh, récemment le dernier vote du budget gis nga tey le ministère de la formation professionnelle Dame Diop yokkaat nañu budget ci euh, volet euh, formation professionnelle ak ak ak ak emploi donc man jàpp naa ne suñuy ñëw dañuy ñëw ñun accompagner leen Euh, dans dans dans dans dans ce qu'ils font dañuy ñëw tamit orienter leen pour man dañuy ñëw plutôt phase de d'accompagnement d'orientation si loolu ñu nekk et je pense que tey euh, les prochaines sessions qui vont venir peut-être bien xëy na bokk na ñoom si seeni euh, si seeni thème yu ñuy discuter je ne saurais le dire ici mais man lu ma si wax rek mooy la politique de l'emploi actuelle bi nga xam ne moom la ñu fi tëral ba ñu fi ñëwee 2012 ba léegi am na vraiment impacté na positivement euh, vraiment si euh, sunu sunu sunu jeunesse boobu. d'accord ñu daal di ñëw ci euh, wàllum local yi. ba tey nit ñi ñi ngi ne waruñu ko mën tenir am ñu ne war nañ ko mën tenir surtout ñu ci bari ñu féete ci opposition bi ñi ngi ne jamono ji dañuy bëgg a repousser élection locale yi pour loolu mën a influer ci yeneen échéance yi nga xamante ni ñu ngi koy waajal est-ce que yaakaar nga ni élection euh, locale yi jamono ji waruñu ko mën a tenir comme ni ñu ko programmé woon mais xam nga tey ba léegi waxuñu fenn ni dañoo changé date dégg nga fi ñu ko waxee de mais 2021 euh, mars bi ñu waxoon ba léegi ki nga xam ni moo di Antoine moom war na wax na ni mënatul nekk mais xam nga euh, dañu wax si 2021 lay nekk xam nga dialogue bi lañ doon discuter Euh, te tamit élection locale euh, su fekkee da ma ni mars 2021 bi nous sommes au mois presque incha allah au mois de janvier euh, bientôt mais en trois mois xam nga ni élection quand même kenn mënu ko tenir en si trois mois il y a électoral il y a mécanismes yi nga xam ne ñooy tax élection am si vingt 2021 bi la ñu waxoon te ba léegi dégg guma ñu ne dañuy changer euh, année 2021 bi maintenant opposition bi moom chaque fois il faut mu trouver lu muy wax il faut mu am quand même euh, moom euh, lenn lu muy wax di ko alimenter tey suñu nee dañ ko bëgg a pousse si sa wax si sa wax nga ni pour jéem a par rapport ak les autres élections qui vont venir mhm. man mënuma xam comment pourquoi parce que 2019 bërki démb la ki nga xam ne yow ba nga demee élection avec toute l'opposition confondue on les a battus pour cent donc foog naa ni kooku am majorité à l'Assemblée nationale ah foog naa ni ñun amuñu ragal sax naan dañuy dem élection ou pas donc c'est juste un problème de de de d'organisation ñu ngi si dialogue bi ñu ngi doon discuter ces points la donc man damay bàyyi la dialogue sur son cours et xam naa ni si biir élection yi man dama jàpp ni élection yi ba fu may wax ak yow waxuñu ma que dañ koy dañ koy pousse dégguma ko fenn dafa may wax ak yow damaa jàpp ni élection yi bi la. ci 2021 certes mais kañ. mais ah, kañ kañ comme li nga wax. nee nga euh, euh, wala jaloog bi moom <laughs> instant bi moom moo nekk euh, moo ñi guidé. jaloog bi suñ fa tegee du pour mu giddee ñu pour doxalinu réew mi moo tax ñu jël des personnes responsables yi nga xam ne des personnes yi nga xam ne ñoom dafa am na ñu représenté ci réew mi te dialogue bi tamit astu bul fàtte ni quand même opposition mi ngi fa dem. cette opposition virulente. une partie de l'opposition non ñu ngi foofu ku si nekk am nga ko la représenté des fois dañuy génne di wax rek de. Ah ku si nekk da ngay génne di wax rek ñoom ñëpp ñu ngi foofu am na ñu leen représenté. Pastef ku foofu représenté. Pastef je ne saurais vous dire mais je sais qu'il est représenté mais Pastef n'est pas dans le dans le dialogue national. mais mais Pastef il pas dans le dialogue national comme ni nga ko waxee. Pastef lu ñu woote ba ñuy woote ci Covid bi euh, seen euh, njiit moo fa jiitu ba mu génnee sànni xeer. dialogue bi ma dañ ko woo mu dem rek man jop waaw comme li ñu ko woowee mu dem foofu noonu lañ leen wooyee si dialogue bi mi ngi foofu ñu représenté waaw parce ñu ngi si man si d'après mes sources hmm. lu ma la mën a wax rek mooy euh, euh, astu ñi fa nekk ku jë bi moo fa nekk ak ñun ñii nga xam ne ñoo nekk si majorité bi te décision bu ñu fa mun munti jël dafay doon décision bi nga xam ne dafay dañuy am consensus fort ñun ñëpp et pour lenn tamit euh, opposition bi dañoo bëri ay kujje Pastef mi ngi foofu euh, ñeneen ak ñeneen mi ngi foofu mais Pastef bi taxaw ni dialoguewul mais quand même ça ça c'est c'est contradictoire Pastef dafa taxaw mu ne dialo dialoguewul donc comment Pastef peut être représenté au dialogue national moo waxaat la dama ne la ku jëpp politique bi yëpp mi ngi foofu si biir euh, dialogue national bi te dialogue national bi lépp lu ñu fay jël lépp lu ñu fay valider da doon nekk ci consensus fort day nekk si li nga xam ne ñoom ñoo si waxtaan d ci demuñu fa pour foo demuñu fa pour leneen. Mm. donc lépp lu ñu fa jël laa wax dafay doon li nga xam ne njëriñu askan bi la. moo tax tey dialogue boobu am te ñi képp ku nga xam ne bokk nga si kujje bi yaa ngi fa am nga ku la fa représenté si gàttal daal pour waxaat la ne la élection yi nga xam ne fa la ñuy jëm ki nga xam ne moo dem avec 58 pour cent gagné foog naa ne ragalul dem élection maintenant nag élection dafa am lu ko lu ko tënk. dafa am ay mécanisme mais mais bi il faut une très bonne organisation euh, Ibrahima Sagna gis nañ ni euh, jamono ji moom il est tellement décrié ci ci ci anam bi nga xamante ni euh, moom la doxalee dialogue bi. yow amoo ci benn ah benn benn ah, gis-gis loolu c'est ah, kon kon liiroo kon liiroo presse bi. vous êtes pas à